mi ngi gis kanaal bi tam mi ngi nii gis ngeen miir bi ngeen di gis ci suuf nii mi miir bii ngeen gis euh, ci suuf ni dal bi daanu nii ci kanaal bi la jógee pour confirmer nit ñi ni que kanaal bi mi ngi ci danger urgence la fu mu nekk nii mi ngi ci danger parce que miir yi dafa daanu miir yëpp mi ngi nii di daanu le fait que ndox bi mi ngi am doole canal bi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ngi indi problème waaw dafa màgget dañ ko war a defaraat lii c'est très dangereux mi ngi nii yi ngeen di gis nii dafa daanu dafa daanu waaw mi ngi nii voyez mi ngi nii dafa métti gis yéen a ngi gis feer yaa ngi nii mais kanaal bi bu yàqoo feer yi nekk di génn feer yi ci boppam sax nu ñuy génnee nii euh, en fait euh, euh, mbalit bi bu waree jàll du jàll parce que gis nga mu ngi téye morceau yi saleté bi yëpp du jógee fu fële. vous voyez yéen a ngi gis ah, je pense ni que lii moom euh, leer na du ñàkk nag euh, ay nit dinañ ci commenter encore parce que Sénégal moom euh, nii lay demee à chaque fois mais ñun moom dañuy liggéey na ko ñëpp xam waaw te dañuy rafetlu bu baax képp ki nga xamante ne yaa ngi commenter ñoo ngi lu sa commentaire muy positif muy négatif waaw mais ñun lu ñu soxal mooy réew bi. mën a jëm kanam gis ngeen lii fan yii bañ ko fi jëlee yaagut yaagut ñoom ñi nga xamante dañ ko bàyyi à côté mu nekk à côté génnee bàyyi ko fi à côté bàyyi ko fi dem seen yoon mi ngi nii ndox bi jëlaat na ko yëpp delloowaat ko ci canal bi il faut qu'on se dise la vérité na nit ñi di bàyyi di ñun la ñun la non never loolu ku bëgg xam ndax ñun ñoo ko fii defal defuñu ko fi da ngay ñëw nga ñëw nga ñëw toog fii su la ko jaralee nga xool nga xool bu baax fii ñun dañ ko sécuriser maanaam seetaan seetaanuñu fi kenn di ko fi def mais lii fi muy jogee la boo leen bu ñu defaroon marché bi defaroon kanaal bi fi mu tàmbalee ca kaw je pense ni que problème bi yëpp ñun duñ ko dund ndax gis nga ndox bi mooy indi mbalit bi ba fii bu ñëwee mu bàyyi ko bàyyi ko fii mu dem yoonam ñoom bu ñu ñëwee ñëw gëmloo ni ñi ko dañuy defar ah vous voyez ñëw génnee ko bàyyi ko fi dem seen yoon bu oto bi ñëwee nax nit ñi delluwaat fi mu jógee waaw ñu ngi nii ba tey ñu ngi subir problème bi lii yenuwul benn maanaa mbalit bi fa fu muy jógee waaw dëkkandoo yi sottiwuñu ko fi ndax kër gu nekk am na kuñ fay bàyyi koo xam ne di day taxaw bàyyi ko xel kenn sottewu ko fi te buñ ko fi sottee itam tax amuñu fuñ koy sotti boo bu président bi wala maire bi tegoon fii benn dépôt foo xam ne nañ fay mën a def mbalit je pense que problème bi du demee nii mais ku amul fu muy def mbalitam amul fu mu koy def ñu ngi nekk ci nawet xanaa doo leen ma ne dañ daf koy jël dugal ko ci biir pukusam wala ci këram mu fay xeeñ il faut qu'on dise la lii ñun mënatuñu dëkk lii ñoom ñoo ko génnee bàyyi ko fi dem seen yoon waaw dafa fu mu jógee ndax tàmbalewul fii kese waaw mi ngi nii ñoom ñoo ko fi bàyyi dem seen yoon gis nga kanaal baa ngi nii yaxu yaxet waaw ñu yëpp dañoo son ndox bi fii yëpp la jaar fii yëpp lay dugg voilà dañ ko war a defaraat il est temps ngeen ñoo defar kanaal bi waaw il est temps ngeen ñoo defar kanaal bi mi ngi nii gis nga lii dara mënul dem amul lenn lu mun a dem kanaal bi moo yàqu dañ ko war a defaraat mu gën a yaatu ñu def couvert ci kawam fermer ko de telle sorte ni que problème dootu ci amaat waa mi ngi nii yéen ngi gis ñoo gisandoo ndox bi bu ñëwee fu mu ne nii gis ngeen lii gars yi ñoo fexe ba construire ko ah construire ko pour ndox bi bañ a dugg ci biir habitation yi ci këru jàmbur yi mais teewut ba mu ñëwee ndox bi dafa am doole mu na dugg ci kër yi yëpp ah ci kër yëpp ndox bi jaar na fa bu waaye ah yëpp bu xale yi jógee ay jeunes jóg di defar. na nañu àndandoo defar ndax dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk duñ ko bàyyi ci loxo maire duñ ko bàyyi ci loxo président mu koy yenn moom kese ñun wàll ñu ci mën dañ koy def te ñu koy def na ko ñëpp xam na ko ñëpp xam nag luñ ci mën ñun ñu ngi koy def mais ko amul ndimbal amoo benn soutien du matériel du du dara ndax du dee finance ñun soxlawuñu finance ñu ko avec la peu lu ñuy dajaloo fi ci suñu biir di cotiser ensemble di xool lu ñu mën a régler ci koñ bi ñu ngi koy def ñaar fukk wala fukk bu waaye mën a am mi ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy partagé ak ñun ensemble fii si koñ bi ñu ngi koy partagé waaw ñun côté boobu amuñu si benn problème ak kenn te duñu mës a taxaw di di ko di ko wax kenn tam mais lu ñu bëgg mooy réew bi ñun ñoo ko bokk dañu am wàll fépp am wàll fépp ndax dañuy fay ay impôt di fay ay tax ci dëkk bi suñu xaalis dafa nekk ci ci gouvernement bi bu ñu xaar sax ñun ñuy ñëw dañu nañ def seen devoir dafa métti vraiment waaye mi ngi nii dafa yàqu gis nga lii mi ngi lekku suuf saa ngi nii di lekku bu lekkoo ba lekk suuf si après ci kër gii lay jëm dugg ndox bi day dugg sonnal leen mi ngi def menace bu catastrophe bu grave xale yaa ngi nii vous voyez saa si alboje vous lii dafa wóor wóorul ah wóorul difficile vraiment mi ngi nii lii ngeen di gis nii yëpp ñoom ñoo ko fi bàyyi wallahi azim ñun yàlla moo tax ñuy wax ñun yàlla moo tax ñuy wax amul ñu ñu benn intérêt ñuy wax li nga xamante ne amul lii yëpp ñun dañ ko génnee dañ ko defaroon dañ ko defaroon mais ñoo ñëw génnee ko bàyyi ko fii dem ndox bi di ko jëlaat di ko dugalaat ci kanaal bi wax nañ ko ba sonn dara waaw ñu ni ngay gis bu kot es la fii la xewee waaw fii ci kanaal bi vraiment voilà